ಸಮಯ ಉತ್ಕುಮ ಜಾಪಲೆ ಸಮಯ sonn na parce que nit nga dund àdduna mi yëpp def koo amuñu lu amul ku koy jàppale du doom ju góor bi nga xamante ni mu mag la wala war na koo jàppale wala war na takk soxna indi ko ci kër gi kooku toppatoo sama sama yaay benn benn la am yàlla moom na ko sama yaay nekk sama papa gaañu salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di leen baalu àq ci weeru koor gi di leen baal àq tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di remercier encore une fois ñëpp ñi nga xam te ni ñu ngi suivre suñuy vidéo tey nag vidéo bii ñu leen di indil bokkoon na ci vidéo yi fi jotoon a jaar mu nekk benn histoire boo xam ni suñu benn sœur moo ko dund jotoon nañ ko dugal nag mais ni mu ko expliqué c'était trop détaillé te dafa guddoon te li ci ëpp solo ca fin ba la ko wax kon am na ñoo xam te ne xëy na dégluwuñ lépp kon mënuñu xam exactement lan moo doonoon soxla bi mais dafa nekk sunu benn mbokk boo xamante ni dafa nekk ci ay tolof tolof surtout jëm ci yaayam parce que histoire boo ko déggee dafa doon loo xamante ni si daw na yaram te moom li mu soxla instant yi nii mooy ku ko jàppale. te franchement moom lim ñu expliqué doy na wax trop parce que kii du waajuram wu jigéen dëkkuwaayam jamono ji kenn mënu la ko expliqué dem na sax bu bëggee dem toilette day génn dem ci kër dëkkandoo yi parce que kër gi mu dëkk amu ko fa te seen dëkkin dafa metti d'après li nga xam te ne moom la expliqué kon nag ñi ngi sàkku ñëpp ci barke weeru koor gi ñu nekk nga xam te ne lépp loo def suñu borom da la koy fulal. képp koo xam ni mën nga ko jàppale te yàlla tax nga contacter ñu ci numéro bii di affiché ci suuf mooy suñu numéro ñun ñii di wax mais képp koo xam ne contacter nga ñu dinañ la boole ak moom nga xam te ni lépp loo koy jàppalee nga jàppale ko te yàlla tax parce que ñun du ñu bëgg dara di jaar suñu loxo àdduna dafa gudd tànk te on sait jamais donc képp koo xam ne ni bëgg nga ko jàppale te yàlla tax boo ñu contacter dinañ la boole ak moom comme ça lépp loo koy jàppale mu nekk entre yéen ñaar li ñuy def nii nag dafa nekk suñu benn mbokk boo xam ne rek moo nekk ci tolof tolof parce que jombul kenn man mii di wax ak yéen ëllëg mën na maa nekk ci situation yu mel nii donc loolu rek moo waral ñu jël décision pour jàppale ko te di ko sàkk ci yéen ñëpp képp koo xam ni bëgg nga ko jàppale nga contacter ñu incha allahu dinañ la boole ak moom kon nag dañu leen di bàyyi ngeen déglu histoire bi nga xamante ni si moom la ñu raconté donc li mu wax yëpp dafa gudd nag. mais dañ ciy jël parties yi nga xamante ni rek moo ci ëpp solo ñu tegal leen ko di leen jaajëfal encore une fois te di leen jox di daje ci beneen vidéo incha allah ñu bàyyi leen ngeen déglu li nga xamante ni si moom la wax. Ah, asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi tey dama bëgg. partager sama douleur bi nga xamante ni que moom laa dund depuis xale ba fu may wax ak yéen yéen ni ma bëggoon ko partager ak yéen ngeen jàppale ma donc yéen laa ci yaakaar confiance naa leen ci moo tax ma wala fas yéene waxtaan ak yéen euh, yàlla def sama waajur bu jigéen sama waajur bu góor génn àdduna en 2010 janvier 2010 léegi maag maag ñoom euh, temps bi ma nekkee ak euh, ñoom ñaar di dund ak ñoom li ma gis euh, seen diggante ak seen diggante ak dëkkoon dëkkandoo yi ak ñoom seen vie bi doon dundee dafa metti woon torop donc man sama dund eh, waajur samay waajur lañ doon dundee dafa metti parce que man ba ma xippeekoo rekk ba ma xam sama bopp fi ma xamee ne man kat nit laa wala jigéen laa fi ma xàmmee daal fekkuma samay waajur am dara amuñu dara ñu naanuñu amuñu kenn ki nga xamante ne moo leen war a jàppale donc sama yaay première doomam ko góor la gaañu na sama yaay daanaka ay jigéen rek ñoo ñooy mag ñaari ñaari ñu góor lañ te ay xale lañ donc vie boobu noonu man ci laa juddu gis samay waajur di souffrir ñu sonn ci mét ñu sonn loolu ci côté ñàkk amuñu amuñu sax lu ñuy lekk bu ñu lekkee rek yàlla dëkkandoo yu baax yi lañ ñoom ñooy indi seen ay desetu lekk sama yaay di ci dundal njabootam ñun ñu ciy dund mu metti loolu ci ñun mu nekk loo xamante ni que mënuma koo fàtte ba keroog may dee mu metti lool may gis ñuy souffrir mënuma ci dara may xale noonu laa dëkkee ak ñoom ba sama papa génn àdduna sama papa bu mu gaañoo 2010 boobu ba muy génne juróomi dërëm juróom laa la waxte juróom dënn donn sax bàyyi ko ci ginnaawam tellement que nit ñi ñàkkee ba tey ji ñun léegi ba mu génnee àdduna comme sama yaay dafa am ay doom yu ndaw man ma ne ko na ma bàyyi ma ñëw ndakaaru pour ñëw liggéey si léegi sama yaay d'accord ci ma ñëw avant ma dem Dakar sax dundu dëkk ba métti woon na parce première fois dama mosoon sëy mosoon naa sëy jóge dëkk ba dem ba beneen réew boobu xale laa woon ay 15 ans yooyu naan laay am ma dem ba dëkk eh, boobu noonu dafa sëy ñu may ma koo xamante ni xaw ma ko mosuma koo gis ba ma demee kooku noonu nekk koo xamante ni que mën na ma jur daanaka maag ay doomam ñoo âgé ma gis ko nag xam nga photo lañ ma wonoon ndekete photo bañ ma wonoon photo bu yàgg la léegi ba ma demee gis waa mu màgget ma xam ne du sama du sama âge waruma sëy ak moom et def naa lu ne pour muñ toog supporter ko mais mënul nekk mënuma bokkoon ak moom benn lal mënuma bokkoon ak moom ci benn néeg mu metti torop ma def et tout ba waaj Sénégal ne waa ji bëgguma ko léegi man ci laa dem Dakar. yàlla def ma gis foofu noonu benn xale bu boo xamante ne que xale bu góor bi ma bëgg ko yàlla boole ma ak moom. ma bëgg ma ma bëgg ko loolu léegi xale bu góor bi yàlla tudd ma tudd doom suñu diggante ma moom léegi ba ma ci jëlee ëmb mu nekk ay cheikh donc ñaari cheikh yu jigéen laa ko jural xale bu góor bi proposé ma mariage waajuram yi bañ ne mënul tàkk ñaari jabar parce que amul xale bu góor bi amul liggéey ju baax moom amul ba pare may nañ ko doom bàjjanam koo xamante ni que takkoogu ko donc mënul jël keneen man ma gis euh, ma doon waxtaan sama benn euh, sœur la sama sœur ñoo bokk ndey baay jëkkëram bu ndaw jëkkëram bu ndaw moo nekk Côte d'Ivoire fii moom laa doon waxtaan ak benn jour mu tooñ ma mu ne ma nekk sa jëkkër ma ne ko man de amaguma jëkkër kooku tamit mu nekk nit koo xamante ni que nit baax la am yërmande loolu mu ne ma amoo jëkkër ma mu ne ma ah am naa fi koo xamante ni que dinaa la présenter ak moom ma ne ko waa ah, baax na léegi noonu la rek affaire yi gaaw gaaw lu même pas deux mois sëy bi tàkk ko sëy ma sëy ñëw sëy si même pas lépp daal motul paasewul trois mois léegi euh, sama rakk bu jigéen bi Eh, ràqu jëkkëram moo doxal sama diggante ak sama jëkkër ji may seyal instant bi nii sama jëkkër ji may seyal mag la ay doomam ñoo mu mag ñu mag ma lool am na ay quatre doom yoo xamante ne ay jigéen la ñu ñëpp mu mag daanaka man caatam bi laa maaseel sax doomam yi yëpp mu mag paa bi nekk mag ba ñu defee lépp ma ñëw fekk paa bi Côte fii lu ma ko wax mu ne ma fukk nangu maa defal dara lu ma ko la ma ko laaj mu yuuxu sama kaw maa ngi fi def souffrir say boo xamante ni que bëgguma ko amul benn sentiment mu nekk mag boo xamante ni mu nekk mag aussi mu mag ma ay doomam mag ma man ma ñëwoon pour. suturallu parce que li ma jot dund sama vie dafa metti moo tax ma décidé seeg paa bi paa bi balaa maa seeg moom balaa maa seeg moom gis naa ay photom xam naa ne paa la tout man ma décidé rek ne metti bi may dund il faut ma genn foofu na ndakaaru ñëw sëy fii léegi ba ma ñëwee fii aussi mu metti torop maa ngi fii waaye sama xel ak sama xalaat li doon sama yitte tout le temps samay waajur lañ ba ma nekkee xale ba fi may wax ak yéen samay waajur ñooy sama yitte sama yaay di dund loo xamante ne que ci village bi foofu boo fa demee suñu kër gi daanaka suñu kër gi foofu noonu pour nga gis kër gu mel ne foofu amul keroog laa doon waxtaan ak sama mag mu wax ma loo xamante ne que daf ma yem mu ne ma jiw ma ne ko wax mun ma sama yaay de dafa fees xam nga mooy mooy mooy genre duus yooyu mu ne ma duusam dafa fees mujj na koo tëju léegi mën na ko waa ñoom fan la ñuy dem ah bu ñu soxlee duus fan la ñuy dem mu ne ma ci ay dëkkandoo dëkkandoo yi mu nekk loo xamante ne que lu ma marke la mu ne ma sama yaay néeg yi fanaan sax parce que ay loolu xamoon nañ koy waxee ci olof ay ban lañ parce que man lakkakat laa je crois que ban lañ koy wax donc néeg yooyu noonu ay néegu ban la te ban bi dafa dem ba ba xar-xar nee na eh, en fait ba euh, pour en fait fi ñu nekk noonu pour ñu fay fanaan sax moom xelam dalu ci ba ma waxee loolu ma tiit aw ma lu may def aw ma ku may woo di ko expliquer sama problème may jàppale. di ci naa leen ay preuve man la buñ la ne ay nit ñoo dëkk kër gi doo ko gëm tellement sax ay mbaam sax fanaat fanaanatuñu genre kër yooyu noonu mu nekk loo xamante ne que mën na xare ma lool sama àdduna métti lool te mënuma ci dara. ma wóolu leen ci nag ngeen ah, ngeen ngeen ngeen publier sama message bi ku ci dégg bu dee jullit la bu dee murit la wala tijaan la xaadir laayen bañuma ci kenn ku ma ci mën a jàppale ba sama waajur bu jigéen ma mën koo jàppale mu jàppale ma te yàlla tax man sama dund dafa metti trop maa ngi fi sëy waaye sëy bi nag ndegeel lalu ko dama fi ñëwoon sëy pour jàppale sama yaay mais ba may dugg sëy bi loolu moo ma yëkkati woon sëy ak waa ji mu jàppale ma su ma ko ñaanee fukk mu ne ma am ko ñaari dërëm sax su ma ko ñaanee duma ko jox sama yaakaar tas aw ma lan lay def sama yaay bugguma ko woo saa yi ma ko ooyee ah maa ngi fi di sant yàlla waaye boo leen ma déggee ne dee naa rek xamal leen xamal leen ne xiif moo ma rey xam nga ban doom mooy dégg sa yaay di wax yenn kàddu yi nga koy bëgg a dégg tout le temps parfois dama koy bëgg a woo duma ko woo parce que dama koy naan su ma ko oowee rek daf may jooyloo encore tellement que dafa sonn mu am naqar àdduna mu ñoon mosuñu am bànneex man samay frère samay sœur ñëpp mënuñoo am bànneex samay frère yi ndaw yi nag ay xale lañ ñooñu man maa leen sax màgg ay xale lañ Eh, sama benn frère kooku dafa am àndandoo boo xamante ne que du mën a toog ci biir kër gi sax instant bi nii nii sax xamuñu ndax mu ngi dund wala dee na instant bi nii xamuñu fu ñu nekk fu mu nekk xamuñu ko. sama yaay yooyu yëpp problème yooyu yëpp nekk ci bopp bi sama frère bi dem ne mes nii kenn xamul fu mu nekk boo déggee ne mu ngi ci village bi tey moo jógee foofu noonu dem beneen beneen village. maa ngi ñaan maa ngi ñaan waa Sénégal jàppale ma ma jàppale sama waajur damay wut ku ma jàppale sama yaay sonn na parce que nit nga dund ci àddunam yëpp def ko dund métit amuñu lu ñuy lekk amuñu lu ñuy naan amul ku koy jàppale du frère du doom ju góor bi nga xamante ni que moom mu mag la walla war na koo jàppale wala war na takk soxna indi ko ci kër gi kooku toppatoo sama sama yaay benn benn la am yàlla moom na ko sama yaay nekk sama papa gaañu sama yaay rek moo nekk ci biir kër gi léegi ak sama benn sœur bu jigéen donc histoire bi man c'est incroyable parfois damay ne la man lan la ñuy def yàlla ba mérito li yëpp man maa ngi ñaan sénégalais yi ku ma ci mën a jàppale ngir yàlla jëmmay rasulullah nag ma jàppale te yàlla rek a tax sonn nañ trop nit ki nga xamante ni que dangaa dund ba toll fi nga toll ni mosoo ci am bànneex sa dund dafa metti muy dund bu metti metti metti metti ma leen di ñaan nag ngeen jàppale ma bu baax ma mën a jàppale sama waajur bu jigéen